wa ah, waaye lu waral loolu mu ne ah kañ li ko waral lii dong la Eumeu Sène daal ba nag mbër moo xam ne daal yow yaay record couronne roi des arènes maanaam Eumeu daal mësta xëccoo roi des arènes waaw ñu ne ko loolu mu demee mu ne nii la demee Balla Gaye 2 Eumeu Sène bëri nañ yoon ba ñuy njëkk bëre Balla yoru roi des arènes ba ñuy mujj bëre Balla daa ñàkkoon roi des arènes Yékini génn nii daal lam ji keneen a ngi kon nag Balla Gaye numéro 2 moom am na sonu sas waaye nag Balla Gaye numéro numéro 2 Balla Gaye numéro daa am loo xam ne Tapha Gueye amu ko Tyson amu Balla bay bàyyi lam sa bu ñëw ci samedi ji ba tey yëglikaay bi ñëw ci samedi ji nag mooy école de Mor Fadam daal ak seen résultat ren daal boo xoolee 27 lañ def 13 victoire 14 défaite école de Mor Fadam loolu mooy seen ay résultat moo tax yëglikaay bi nag di laaj Mor Fadam nag la mu xamle mooy loolu daal ah liggéey ba des na des na lool kon nag nañ ko gën a yokk bu baax a baax a baax a bii nu jëm si ñeneen a ngi ni waa groupe baax ñoom nag fu mel ni parcelle Pikine jàmm gën ak ñoom yëmbal ak dëkk yooyu yëpp waaw war nañ faa dem daal wane fa seen bopp bu baax a baax ñoom waa groupe baax ba tey yëglikaay bi ci mu ngi ñëw nag ci lënd ji na 27 25 septembre moom nag voyagé na dem fële ci États-Unis daal ne daal liggéey gaaw ak rapidité Ambroise Sarr nag di entraîneur national yore équipe nationale dañ ko caa laaj xalaatam Ambroise ne man de su ma ko yoroon ñu ne ko kon looy def mu ne kon Modou Lô du génn Sénégal ndax nee na combat man tat mënoo toog ba mu des ñeen fukki fan wala mooy de ñeen fukki fan nga naan da ngay dem ba États-Unis naan da ngay liggéey waaye lu gaawaay ak rapidité man su doon maa yor Modou Lô du génn fii ñu ne ko am loolu lu tax mu ne parce que li tax mooy mbër sa combat bu desee fan yu toll noonu li nga war a def mooy boo xëyee dem dafay musculaire boo ca jógee maanaam nga dem ca écrit ba contact ak mbër yi ba ñàq sa yaram tàng loolu nga ñibbi récupéré na lii mooy li waroon a am waaye

Sonko bi wax na ci loolu ci altine Sarko daal ay mbiram kon doxatul kon yi waa ñooñu nag war nañoo gën a yokk seen liggéey bu baax a baax a baax wala Sarko bokk na gën a yokk ab liggéeyam ba tey ñu continuer nag mardi septembre yëglikaay bi nag xëy ñëwaat fi mu ñëw nag fenn la mooy écrit mag boobu di Fass yëglikaay bi nag lim ñu xamal daal mooy écrit Fass daal fi mu nekk nii saison bi ñu dem daal saison bu dëgg lay doon bi mu jëm

talaata ji kooku kan la bi ñaan gis nañ ko fa ak waxal ak waa amal daay ñoom nag deuxième date yi nga xam ne nii daal moom mooy war a am ci lit simple ginnaaw ba ba pare kooku kan mooy la mu bii ñu jëm bu soobee yàlla buñ ko fekkee tal ko ah li ñu bëgg def daal mooy signature contrat bu war a dox ci diggante Modou ak Lac de Guiers numéro 2 nee nag dañ ci bëgg a woo yi nga tëgg nañ leen lépp ñoom ñëpp ñu ñëw toog ñu présenté leen public saison bi ñu jëm nee nag loolu moom fi mu nekk nii daal ci loolu lañ taxaw nee boobu tamit mooy nekk seen daje bu mujj ak ci diggante Modou Lo ak Lac de balaa seen combat le 29 octobre boobu nag ba tey duñ ko sori ndax keneen a ngi nii ku bokk ci Modou Lo jege ko lool di Jamaïcain kenn bu ñu moom nag mu nga bokk seen ration xarañ yor seenuk sañ wax Jamaïcain nag wax na lii nee daal yéen seetkat yi kon yéen déglu leen li Jamaïcain nee na

ñoo commencé ko ci bu samedi bi mu mel ni gars yi Eumeu Sène la ñu xëy di wax maanaam ak ñàkk sansam ci ñàkk mën a bëri ak roi des arènes def bi mu nekkee ci làmb ji ba léegi donte am na roi des arènes bi instant mais dara leeragul. waaw Lamine ñu ngi lay di mbokk internet yi ñu suivre ci luttetv.com yëpp comme nu léegi likaay bi ni mu ñëw samedi ci Eumeu Sène loolu moo wax am na parce que Eumeu boo xoolee bëri na ak ay mbër yu mag bëri na ak Gris Bordeaux bëri ak Balla Gaye bëri ak Modou Lo mais ba tey amagul sensu kenn ci mbër yu bi muy bëri ak yow nga yore roi des arènes mu ngi doon espérer Yékini Yékini far na bàyyi làmb tey am na combat ak Bombardier mais combat ba tey ñu ngi naan leer nag leeragul maanaam kon moom loolu wax dëgg yàlla ah mooy léegi li kaay bi gis moom ñëpp moom lañ daal sens boobu moom wax dëgg yàlla amagu ko koo xam ne combat roi des arènes la xëy na ñu koy bëri ku nekk roi des arènes mu mel ni Yékini moom nga wax ne bàyyi na làmb moom ak Tyson ak Tafa Gueye dafa mel ni ñu bàyyee làmb neexul de parce que ñoom ñëpp ki defet dañu bàyyee làmb waaye baabooy nag melul ni ñoom. waaw Balla Beye moom journal bi daa ñëw ci moom ci samedi bi te loolu mu wax am na li mu am moom Yékini amu ko Tapha Gueye amu ko Tyson amu ko ndax ñooñu ku ci ne bi sa carrière di jeex combat yi nga mujj bëri dañ la daan Tapha Gueye Balla Gaye numéro 2 ko mujjee daan ak Lac de bu dee Yékini gis nga Lac de Guiers ko mujjee daan tamit bu dee Tyson tamit même chose kii boo ko mujj daan ba booy nag wax dëgg bi muy bàyyi làmb licence am di jeex combat bi mujj a bëri digganteem ak Baye Mandione la ca Kaolack daan ko fa jël bu rëyee rëy kon moom loolu moo am kenn benn mbër amu ko daal ci mbër yooyu. bi ci topp mooy bu lundi bi 25 septembre 2017 40 moo des ci combat moom Modou Lo mu dem États-Unis lan la bëgg ba tax mu dem États-Unis loolu la yéen kaay bi xëy samp laaj waaye ku mel ne Ambroise Sarr ñëw na ci. waaw Ambroise Sarr nag ñoo xam ko bu baax a baax Mohamed Lamine moom mooy entraîneur national équipe nationale mooy entraîneur équipe nationale bi moom nag gis-gis bi mu amee daal mooy loolu moom pour moom biñ ko laajee nee na loolu parce que nee na mbër bu mu mënta doon du sax Modou Lo kese mbër yëpp ci daje yem combat bu desee 40 jours li nga war a def mooy nga toog liggéey boo defee réveil musculaire liggéey endurance bu ngoon jotee nga dem contact yi récupéré na loolu moo doon yoon su ko yoroon moom Ambroise daal gis na ne loolu la Modou di liggéey mais du dem mukk États-Unis bii daal parce que affaire dafa ñëw ba pare yéen

26 septembre 2017 gars yi ni Fass ñu ngi jëm ci saison dëgg dëgg dëgg dëgg ku ci mel ni Gris ak Papa Sow ñoo am ay combat yu rëy sunu làmb ñëwaat na si. Oh, waaw loolu moom mardi bi yëgle gaay bi li mu wax dëgg la de Lamine parce bu dee saison fes bu waxee ne saison dëgg la Écurie Fass jëm loolu teg naa ko xam Écurie Fass ak xam ne loolu am na ak combat yi ñu am Gris Bordeaux Balla Gaye 2 lay bëreel Balla Gaye 2 ku nga xam ne dafa teglante ñaari defet def ñaari année balance kon su ku war a bëree ak moom dinañ la ne caaxaan jeex na dëgg des Papa Sow nag moom itam boo xoolee soriwul l defet la mujjee moom it war a bëree ak Papa ak Ama Baldé loolu tamit te Ama na ni muy nekk nii pour écrit bi taxaw dëgg dëgg dëgg combat yi ñu jël ni ay combat dansé il faut ñu jëm ci génn daal bu dul loolu moom ah dina metti trop trop ci ñoom moo tax saison de vérité lañ jëm waa Fass mu mel ni léegi leer na Modou Lo ak Lac de Guiers numéro 2 dinañ def seen jàkkaarloo le 15 octobre. waaw loolu Abdoulaye Ndiaye ci ñëw di coordonnateur PAF production nee na octobre bu soobee la ci la koy organiser ak mbër tëgg yëpp ñu war leen ci présenté waale nee tamit maanaam loolu fa la ñuy yemale seen i ñoom ñaar ndax li ko waral mooy buñ ci jógee dañuy waajal seen combat pour le octobre kon ñu ñaan yàlla rek loolu war a am